voilà mbokk yi ñu ngi leen di euh, siyaaraat bu baax baax bi ñu jógee euh, Pikine ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Géejawaay koñu Lac de Guiers numéro 2 alors koñ bi xaw na wér nag par rapport ak koñu euh, Boy Niang sëñ bi maa ngi siyaar. waaw delloo siyaar ku baax. naka koñ bi. waaye sant rek. lu tax mu sedd nii. waaw non seddut. Ah. mais xam nga heure dallu bu jotee gars yi dañuy dallu ji. Ah. waaw noonu la demee. mais lan moo tax ngeen baare koñ bi. mais koñ bi ah dañ ko war a baare rek bañ saay saay yi dugg fi ñu yaakaar rek. voilà gis ngeen koñ bi voilà voilà asalaamaaleykum papa maa ngi siyaar. delloo nañu siyaar asalaamaaleykum. naka coono yi. alhamdulilah coono bànneex. Hmm. papa ñu gis ni koñ bi xaw na euh, calme aussi jaar nañu Pikine fees dell lan moo ko waral. waaw xam nga euh, dérangement ñenn ñi xam nga tap tapage nocturne ñun on n'aime pas déranger personne. c'est pourquoi ñun sax ñoo évacuer la jeunesse pour ñu dem quoi parce que il fait tard il a des gens yo xam peut-être demain ils ont d'autres choses à faire. tu as te donc on ne veut pas le déranger. ani ani ani Lac waaw mi ngi fi mi ngi fi mi ngi fi il est en train. ah il est en de récupérer. oui il est en de récupérer. veille combat bi ci ban état d'esprit la nekk. ah mais net cento par cento cent pour cent mieux film mieux hundred by hundred ay tel yu. di le euh, jour ji rek. yàlla may ndam. amul leneen as bu seeraas amul leneen daan rek. waaw ah, dëgg waaj nañ ko nag. waaw waaj nañ ko ay weer la woon. ñu ni ay semaine ñu benn fan ay heure la ñuy wax fi nekk nii mais matatul sax jour di ñaan yàlla may ñu dam gannaaw ma la masalo masalo coono alors ci ban état d'esprit ngeen dool gannaaw ma la nuyoo. waaw gaynde ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziar wér. waa xanaa sant yàlla rek sant yàlla rek di xaar suba rek. ñu ñëw def l'essentiel bi yàlla may ñu ndam ci barke Seydina Amady loolu daal la ñuy ñaan. an sa copain. sama mi ngi ci biir. Ah. waa def dallu ko waa. day dallu fu mu toll day nelaw. waaw instant bi noonu day dallu waaw. Euh, mu war a bëri suba booy ñaar di nelaw. waaw rek boo waajee li nga war a waaj yëpp pare da ngay dal ak mu dal quoi. waaw instant bi moom mu ngi dallu quoi. man waa ji bi euh, waa kër Boy Niang nee nañu euh, mu ngi ci whatsapp bi. mu ngi ci kan moo ne si whatsapp bi. Boy Niang mu ngi ci whatsapp bi. moom moo ko tal ñun ñu ngi ci bi ñu ngi ci leneen. non macha allah macha allah sa waay mosu ñoo pare combat rek te kontaagoo moom ba pare jàpp se gémmiñ sant yàlla daal ñaan yàlla mu sax ba suba ci heure bi. ci kàttanu yàlla di song ji da ngeen di song ji euh, Boy Niang. ndax dañuy lan. ngeen koy song waaw lu mu aajowoo rek nu <laughs> mu aajowoo rek. gaa yi ni ngeen waxee ci signature. gaa ni ngeen waxee ci signature bi métti ndam lañ soxla nu ñu ko amee baax na. war a song Boy Niang est si déggoo ma xanaa nu ñu ko amee baax na gaynde eh, barke Seydou Fall. ngay xel mi dal na yàgg na. yàgg na yàgg na waaw. dernière face à face bi. waa Pikine nañu fexe bu fa kenn yóbbu kuur wala gànnaay. nga ni waaw. mais loolu yaakaar naa mu ngi si ginnaaw xanaa. dëggoo ñu ne la fair play. te kii ne fii. moo yore trophée fair play. el xam nga lu ci garaaw gars yi façon glace bu ne def nañ ko fi mais garaaw lan ngeen fi suul lan ngeen fi suul. ñun fii suuluñ fi dara jàmm rek lañ fi suul. di wut ndam rek. suul ngeen fi dara non ndam rek la ñuy wut. suuluñ fi dara dara lañ fi suulul. ñaan yàlla yi may ñu ndam nag ndam bu set wécc bu amul benn werante. parce uh-huh. que Seydina Mohamed yàlla ñu yàlla may ndam. grand lan ngeen fi suul. fii suuluñ fi dara. sama tànk fi nekk rek. <laughs> ak suñu ak suñu ak soose lañ. E, ibe mune la fola mbe mu fola mole mba fola mba di mandinkol be mbe kontona mbe tentula xala mm. waru nga neena gaay dañoo teg ataay bi kay kay kay xolal gaay xolal vay bi gala euh, euh, saway el gaay a ngi nelaw lamb dafa metti lamb moo metti grand lamb metti na de ah ala metti na trop euh. parce que maam depuis kañ ngeen nekk ci koñ bi di veillé ak yooyu waaw depuis gaay moom depuis lor ñu fi mais man moom maa fi door a ñëw waaw tey laa waaw caan bi ñu ngi deuxième. waaw ah, loolu mu may génn. bi mooy bi caanu baafaal la. na nekk. Eh. waaw. mais combat bi métti euh, dana dana dana doy waar suba de. combat bi dana waar mais boo ñëwaat day xaar chaque jour. boo ñëwaat daa asma yow. kan moo asma. boo ñëwaat daa asma. Ah, ñaar di jinne boo ñëwaat dëkk bi baaxul du dara. waaw waxal waxal gaaw. barki borom Touba booy ñaa day xaar lu bari yoo xaar yàlla la dëkk. bar barki yonent bi du buus du paas dinañ ko duma di nañ ko daan barki Serigne. jinne la de barki yàlla jinne dama ko mën. jinne dama ko mën. lay lay la la ah, déggoo lum la wax. déggu ma ko. déggoo lum la wax. gaa ne nañ Pikine laa gaa bu bu jeexee jeex na bu jeexee jeex na dañuy rek yox la jëli ko lañ ci def ñun bañuñ ci dara yox yox la jëli ko dawuñ ci yoole combat suñ combat te Boy Niang na ci bàyyi xel bu baax na ci bàyyi xel na xel. ah dañuy ñu def ñu. voilà mbokk yi ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy waañ bi gaa yaa ngi waajal togg yeeg yooyu ah gaa ngi xolli ay laaj salaamaaleykum yaay booy maa ngi ziar. yal na a ngi waajal seen combat suba. ñoo ngi koy waajal ñoo ngi koy waajal ni ñu ko daan waajalee. di ñaan yàlla suñu borom bu tedd bi nga xam ne mooy maye ndam yal na ñu ma yàlla maye na yàlla nangu ziar. yaay booy noo leen waajalee seen combat sant yàlla rek. di sant suñu borom bu baax a baax. di ñaan ci yàlla mi nga xam ne moo mën. yal nañ yàlla taxaw. Hmm. ci barke yonent bi kenn mënul ku dul Allahu. Allahu waahidun yàlla kenn la. lu waay def ak lu waay yëngal sunu borom bii moo la ëpp doole. teg na ñëpp ci loxo yàlla ak yonent bi. teg ko ci loxo Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif ak Serigne Babacar si mi ñu gëm muy maamam. dénk nañ ko lépp fa mu daan jaar yàlla na fa jaar te ndeyam ji yàlla na xippee àjjana te nag damay ñaan lépp lu ndeyam liggéey ci biir kër gi yàlla na feeñ ci combat bi suba bañ tudde ko victoire bi. loolu di wax Boy Niang. ah ñun kay ñuy préparé combat bi rek am ndam rek jàmm ak salaam rek eh. sama cousin maa ngi koy ñaan rek. waaw di sant yàlla bu baax di julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi di ko ñaanal rek yal na ko yàlla may ndam lu sedd guy si barke Seydina Muhammad auzu billaahi mina sheytaani rajim dañuy ñaan ci yàlla mi nga xam ne mooy may ndam yàlla may ñu ndam gis nga Lac de Guiers ñun Lac de Guiers ñun merewuñ ko xam nga lu mu xam biir kër ndeyam gi jàkka ji entraînement ak tëdd ku ne da ngay seedeel nit ki ci jukkoom xale bu baax la bu yaru déggaloon ndayam déggaloon baayam ndeyam ba muy génn àdduna da ko defaral ndékki ba pare doog a génn àdduna kon xam nga ne kooku ndeyam téye na ko dama lay xamal ne la ñun ñi daw ñu daanuñ amuñu ku dul suñu borom bi yàlla mooy maye yàlla nañu yàlla may ndam ci kaw booy ñaa mais dooma foon tey dooma foon wacca sama ngegenaar tey dooma laal xale bi dama lay xamal ne sigeen soor la jóge ñun ñankatang la ñu xam ak kaldu yéen ñi nga xam ne nag pëndax kecax ngeen xam bu soobe yàlla daañ leen ko siimal ci cere ji ba mu saf sap way kura kura mbisaan yaa jongo ma kura kura mbisaan yaa ma teenelaw voilà mbokk yi gis ngeen ñi nga xamante ne moom mooy waañ bi fi nga xamante ne fii moom mooy koñu euh, Lac de Guiers numéro 2 alors veille bi neex na ba pare gis ngeen euh, ni nga xamante ne ambiance bi noonu la demee buntu kër gi tamit gis ngeen ni mu demee alors mbokk yi Cheikh Omar la woon ànd ak El Hadj ànd ak sama DG Mamadou di leen jox dig daje suba incha allah suba ci suba teel bi lépp loo xamante ne jëm na ci combat Boy Niang Lac de Guiers euh, numéro 2 di ngeen ko am ci seen télévision Equivox TV alors ba suba incha allah peace. <laughs>